voilà ñu ngi fii si Akon City bi ah dañoo ñëwoon fii ba Modiane ñëw def visite de Sadji voilà bi moo nekk ni ñoom nee nañ lii nañu fi jot a gum beaucoup de le, le shape c'est un peu différence même tous le voile, ça va avec le rond comme ça. Ça va très joli. Euh, autre, comme ça, vous le 6 fenêtres. Ça avec le vert. Le montage, ça va être vert. Euh, tous le façade aussi, on va faire le vert. Ça va être et autre aluminium cobalt. Euh, métallique, ça va être. Vert. Comme jusqu'à. monter Euh, ici, par là aussi, ça va être bureau, tous bureaux, euh, conférence, ça va conférence pour les réunions. Même, même ici. Ça, Je me présente. C'est Construction. on est ici niveau euh, de Icon City, au niveau du bâtiment, le Welcome Center. Et je ne sais pas, je, aussi mes ingénieurs, Aydin, et il y a Djiberu, et il y a l'équipe d'Axiom qui a travaillé ici dans le Welcome Center. Mm. Une partie de l'équipe, parce qu'avec l'hivernage, on avait suspendu un peu les travaux. par rapport à ce démarrage de ces de Welcome Center et qu'est-ce que Pour des projets de ce genre, le Welcome Center est le premier bâtiment. C'est un c'est le prototype du, du, des bâtiments, des projets, du, du projet en entier. C'est très compliqué. Euh, Icon City, c'est quelque chose qui n'existe pas. On a demandé deux, trois fois à Icon pourquoi insister sur ça, parce que c'est tellement coûteux. Mais il m'a dit que, dame, je veux pour le Sénégal quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, quelque chose de futuriste. Et euh, on est en train de faire le Welcome Center. On a fini les grosses œuvres. Après, on va faire les finitions et le projet en tant que tel va dé démarrer. Normalement, l'équipe technique qui devait venir de Dubaï et des États-Unis devait être là à fin septembre, mais vous voyez que c'était impraticable. Ici, l'hivernage, c'est impraticable. Et donc, euh, on va remédier à tout ça. et on va essayer d'aller de l'avant. Et le rendez-vous, c'est euh, le début du mois de janvier. Quelles sont les caractéristiques de ce Welcome Center Les caractéristiques du Welcome Center, vous l'avez vu que c'est un bâtiment qui n'a pas de briques. Tout est fait en béton. Et vous avez vu le bâtiment que vous voyez, il y a euh, plus de 3,50 mètres à l'intérieur. Parce que ici, c'est de l'argile, euh, c'est comme euh, à Djamnyadjo, parce que nous sommes aussi au niveau du parc des technologies numériques à Djamnyadjo. C'est difficile, c'est un sol gonflant, donc il faut aller en profondeur, stabiliser le bâtiment et, et, et ressortir. Donc l'investissement est très très très coûteux. Et Icon nous avait contacté quand on était à l'hôtel parce que nous étions aussi l'unique société sénégalaise qui a travaillé à Oterio, à côté de, de, euh, de sociétés espagnoles, mexicaines et portugaises. Mais après, il le Covid. Et après le Covid, on a fait encore des réunions techniques, des réunions techniques, des réunions techniques. Et on s'est aperçu que le projet est parti de 900 et quelques milliards à 1327 milliards. parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. Donc, on a eu à faire des réunions pour revérifier tout, refaire tout euh, euh, du début. Et maintenant, il est, il est fin prêt. Et d'après les dernières informations, il m'a même dit que dans le projet, on va inclure le train qui va partir de l'aéroport pour venir ici. C'est un autre montage, c'est un autre projet aussi. Mais On... Euh, puisqu'on a eu des informations euh, comme quoi que y avait d'autres partenaires qui ont débuté le, projet. Alors, de, qui a causé d'ailleurs la lenteur euh, de, ces travaux-là. Pour ce qui me concerne, mhm. je vous dis que Icon m'a connu au niveau de l'Otterio. <clears throat> Il est venu là-bas et il pensait que l'Otterio... Quelle En 2019, fin 2019-2020. Il était venu, c'est vrai, avec... une équipe euh, de Nigériens, de Sud-Africains, de Français et, et, de quelques personnes de Dubaï et des Américains. Mm. Mais après, il m'a parlé, je lui ai dit que nous sommes une société sénégalaise, une société complètement euh, 100% sénégalais. Et il, a, il est revenu à l'hôtel pour regarder notre équipe Et il est allé avec nous à Djamniadio pour regarder le, le, data center et les bâtiments annexes qui sont là-bas. Et il a dit que vraiment, je veux travailler avec vous parce que je veux que le projet Icon City soit réalisé, peut-être pas entièrement, mais avec des sociétés sénégalaises. Vous disiez tantôt que vous n'êtes qu'un technicien, euh, n'avez pas le monopole, vous ne connaissez pas le fond des choses. mais en tant qu'ouvrier, vous dites que vous êtes dans le projet, mais l'État s'est retiré du projet euh, à travers la SAPCO. En tant que, en tant que maître d'œuvre, que pensez-vous de ça L'État s'est retiré, je ne sais pas. C'est un terrain très glissant pour moi, mais euh, je pense que ce domaine-là appartient à l'État. Si l'État s'est retiré du projet, et difficilement l'État euh, peut se retirer du projet, parce Pourquoi que mhm. euh, d'après, Icon m'a dit que il a déjà les papiers et tout ça. Et a, il a commencé à faire des investissements. Et c'est glissant pour moi, mais il est en train de faire des choses. Et il croit fermement à ce projet et nous pour euh, d'autres questions, je pense que c'est Icon ou l'équipe d'Icon qui peut répondre à ça. Mais vous, aujourd'hui, est euh, les critères pour mener à bien ce projet les, vous savez, les, Non, les moyens financiers, c'est Icon qui les apporte. et nous, les moyens techniques. les moyens techniques, les moyens techniques. Maintenant, on commence, on finit le Welcome Center, comme ça se doit, et étape par étape, et beaucoup d'autres sociétés sénégalaises vont entrer dans le projet parce que euh, c'est un gros village. en dehors du Welcome Center Du Welcome Center, il y a un autre bâtiment au niveau des 5 hectares. Là-bas aussi, c'est un bâtiment témoin et un, un hôtel 5 juste ces on va petit à parce que est en, en relation directe avec l'architecte à Dubaï. Et on va aller euh, petit à petit rectifier, modifier, et restructurer le projet par rapport à l'impact environnemental qu'on a ici et on va aller de l'avant. la date de livraison de ces trois bâtiments, s'il vous Non, c'est Icon qui va venir avec l'équipe euh, qui va venir des États-Unis au mois, parce qu'il devait venir ici au mois de septembre. On a repoussé ça par, euh, euh, parce qu'il y avait la, c'était pratique Waaw man euh, chef de village là mais depuis événement Ekon Ekon lu mu wax ak ñun mu ngi koy def lu mu wax ak ñun mu ngi koy def mu ne nii mosuñu am tolof tolof ne moom. projet bi dina ko réaliser dëgg-dëgg nag mënul ñàkk parce que am na ñoo xam ne dañ si ànd am ñoo xam ne duñ si ànd mais loolu ñun ñun waa Mbodiène yi gisaguñu loo xam ne Akon wax na ko ak ay nitam te defu ko loolu daal laa xam si projet bi ku nekk nag dégg nag wóorul mais gis moo gën a wóor te ñun gis nañ yeexaayu projet bi euh, jublu leen njàqare. non yeexul parce que soo toogee sa kër ba ñu la daan defal lii yaakaar naa dañu ne ku la jox ndéki nga yaakaar su la su diggee añ. nga gëm ko yeexul parce que kenn waxul woon ne fii ak kii fii ak presque ay dix ans la ñu waxoon te mu tagu ko moo tax nag yeexul pour pour waa Mbodiène yi mm-hmm. gisoo gu ma seen lu jàpp nga leen jural njëriñ projet bi. ah yéen ñiy waaw jàpp ngeen ne dina leen jural njëriñ. Ah, jàpp nañ ko parce que li mu wax yëpp si cahier de charge bi dëgg dëgg mën nañ ko gëm parce que soo gisee li mu def fii te wax rek la woon wax la woon te def na ko ak am am na yeneen yoo xam ne commencé na ko te wax la kon nag loolu mën nañ gëm ne dina am njëriñ si dëkk. ah nguur gi loolu nag duggul suma nopp. déggoo loolu. dégg gu ma ne nguur day nangu. ah. loolu loolu ab loolu ñu fi am na. ah loolu dañuy wax rek yaakaar na ah. man xanaa dañuy wax xanaa mbaa parce que déggu ma ko. Ah ngeen wax ma ko. Ah, ah loolu kay du yoon. xanaa balaa ngay def dara nga dem ci village bi laaj waa village bi. comme ni ñu waxoon comme dañu waxoon compétence transférée la kay balaa ngay def dara nga ñëw laaj waa dëkk bi non non man man réunion ak SAPCO la amoon léegi léegi maa ngi nii wàcc si oto bi. waxuñu la ci dara lu jëm ma si dara moo tax man ne leen man na am man na ñàkk am dara. foofu maa ngi nii door ñëw. jërëjëf SAPCO laajal soo laajee am na ñoo xam ne oo nañ ma ne leen maa ngi nii réunion SAPCO mais waxuñu ma dara. ah non wóoruma nag parce que ñun amuñu contrat ak moom. ñun daal suñu suuf lañu am rek. tudd Joachim Jean-Marc Diouf man maa nekk le gérant du centre des jeunes donc maa nekkoon aussi le vice président des jeunes ici à Mbodiène au moment de la construction bu ñuy tabax centre bi fii nii. donc centre bi fii si Mbodiène donc ñun Mbodiène à un moment dañoo soxla woon bërëb bu mel nii donc euh, moom Akon bu mu ñëwee Mbodiène donc avant même muy dem defi première pierre bi fële. bu mu ñëwee waxtaan ak waa dëkk bi daf leen laaj lan ngeen bëgg donc bu mu joxee parole bi aussi jeunesse bi jeunesse bi waxoon nañ ko lii bëggoon nañu defal leen benn centre jour boobu noonu la jël engagement yi dina tabaxal jeunesse bi benn centre te ni mu ko waxee woon noonu la ko defee gis neen ko tey centre bi mu ngi nii taxaw na te defe naa ne amal na fi euh, jeunesse bi njëriñ bu baax a baax a baax. projet bi nag mhm. yéex boobu ba léegi. Mhm. def nga ci fan yii information yi ñu ne état man je pense que ne loolu côté boobu noonu état bi dafa war a bàyyi promoteur bi mu continuer liggéeyam parce que bu continuer liggéeyam njëriñ bi ñun si ñun lay si ñun lay ñëw ñun ñu dëkk Mbodié ñun ñu dëkk si département bi ñu dëkk si commune bi ak Sénégal ñu ñëpp donc man dama dama dama yaakaar ne état bi da ko a jàppale da a gunge si projet boobu noonu parce que moom déjà avant moo commencé liggéey bi rek gis nañ li mu fi jot a def donc kooku bu commencé liggéey bi te am na yeneen yu mu promettre pour jeunesse bi ak yeneen yu mu aussi pour dëkk bi te defe naa loolu yëpp dina ko yeggale donc état bi war na ko mun a jàppale épaulé ko pour euh, li muy mbëbët ni mu mun a sotti. waaw yéex ak yegg bi ana moment donné ñëpp xam nañ ne am na feebar bu fi nekkoon n'est-ce pas feebar boobu noonu boo xoolee retardé na économie mondiale donc te aussi projet bu toll nii ñëpp xam nañ ne nekku ne da nga koy wax tey def ko tey am na étude yoo war a def balaa ngaa commencé n'est-ce pas mu nekk si suuf seeg n'est-ce euh, dem uti ay partenaires loolu yëpp day day laaj temps donc yëpp defe naa ne aussi bokk na si xamante ni dañ koy def ndànk-ndànk ba yegg si rek donc pour man daal na na ko état bi jàppale ñu mën a ñu mun a ñu mën a continuer liggéey boobu.